asalaamaaleykum xam ba ñu di dàkkee li nga xamante ne rek mooy àtte ba ci premier décembre bi ñu génn kii di Barthélémy Dias ni ki dem ama ba ñu koy toppee li nga xamante ni rek mooy coups et blessures volontaires moom mi leen nag ñu daal di koy topp ci li nga xamante ni rek mooy Fatou Ndiaga Diouf moom nag ni ki procureur daal na koy rek requis li nga xamante ni mooy cinq ans de prison ferme waaye nag partie civile bi ñoom ña ngay daal di laaj nàmpaay lu toll ci 150 millions ca ginnaaw ni ki démb bañ doon amal seen élection du bureau municipal waa coalition Benno Bokk Yaakaar nag ñoo daal di am majorité bi am li nga xamante ni mooy 11 adjoint ci 14 nekkoon ñi nga xamante ni nag mooy waa daal di am 3 jaraaf Youssou Ndoye ginnaaw ba mu doon jàkkaarloog suñu naataango yi moom nag daat na yëkkati ay kàddu jëmale ko sax mu nekk lébo moom mi le ah, dina joxe rek ndigal ne bu ko kenn voteel la waral nag daan ko gën a yaatal ci xibaar yi kawteef moo daal di xew ca Sandaga ca Lamine Gueye foofu nag ab waay bu ay atam toll ci juróom fukki at moom nag la ñu faat moom mi le mi ngi wuyoo ci turu Moussa Cissé moom nag dañu ko daal di rey ci anam bu ñaaw ñu ngi ñuy xamal ne sax dañu ko daal di rendi ba noppi rek daal di koy eh, taal ka def lu nu mel nag ñu ngi xibaar ni ab malaat mental la maanaam xel mi neexu mooy société bi di wuyoo ci turu transcontinental transit te directrice ba nekkoon Ndeye Nassi Nia moom nag mooy présumé responsable bi waaye nag ma ngay duutu baaraamu tuuma famille njaay moom nag ma ngay xam ne ni Aziz Ndiaye Massata Ala Ndiaye ak sax kii di Ala Ndiaye ñoom ñooñu le ñoo daal di jël boobu lay produit rek bu toll ci trois virgule neuf milliards ci suñu ay koppar waaye moom ma ngay xam ne ni ñooñu ba ñu noppee rek joxuñu ko dërëm ba tax na rek mbir moom le ah, jamono ji mi nga fi nga xamante ni rek mooy Sène moom mi nga xamante ni rek moom la ñu chargé boobu lay enquête xibaar yi dañu koy jeexalee ak lu soxal mbirum people ginnaaw service suédois du streaming musical ginnaaw ba mu doon fête li nga xamante ni rek mooy seen anniversaire bu njëkk fii ci Sénégal ñoom ñi nag ñu ngay profité rek di wax li nga xamante ni rek mooy ñetti woykat yi ci Sénégal yi nga xamante ni ci seen plateforme bi ñoom la ñuy gën a déglu ñoom nag ña ngay xam ne ni Youssou Ndour la Baaba Maal ak kii di Akon daañu ko gën a ci xibaar yi am internet sunu Sénégal 24 ngeen taaxilu bàkk bi jàll ñu gën leen a yaatal yooyu day xibaar asalaamaaleykum xameentoonatu sunu gaal 24 nuñ leen leen ci gën di nuyoo comme nañu koy faral di defee saa su nekk ci seen biir xibaaru bés bile ginnaaw ba ñu daal di dàkkee rek li nga xamante ni mooy àtte Barthélémy Dias ci 1er décembre bi ñu génn ni ki démb nag ma nga woon ci tribunal bu Dakar ñu ko doon toppee coups et blessures volontaires ak sax ma Ndiaga Diouf mile moom nag ni ki démb procureur daal na koy requis 5 ans de prison ferme waaye nag ñi nga xamante ni ñooy partie civile bi maanaam sax ki nga xamante ni mooy papaay ci Ndiaga lay laaj ndàmpaay bu toll ci 150 millions ci fàttali Ndiaga Diouf ñi ngi ko faat ci atum 2011 foofu ca mairie bu euh, Mermoz Sacré-Cœur moom li nag ginnaaw ba ab jàppante amee ca noonu rek la daal di jëlee ab bal mu daal di ñàkk bakkanam ca Géejawaay seen maire bi di ay dara moom nag daan nay mujj amal li nga xamante ni rek mooy bureau municipal am ba ginnaaw nag ba ñu ko doon amal euh, ci 17 février bi ñu génn waaye nag mujjewul woon antu ndax ay jàppante niki dem ñoom ñi la daan nañu amal seen élection waaye nag ñi nga xamante ne ñooy Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi la ñoo daal di am majorité am onze des quatorze adjoints ñi nga xamante ni nag ñooy waa Yewwi daal di am trois jaraaf Youssou Ndoye ginnaaw ba mu doon jàkkaarloog suñu naataango yi moom nag daal na yëkkate ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko moom mi la nag ma ngay xamle ni Ousmane Sonko bu dëkkoon Wakaam wala sax mu nekk Lébu bëgg sax li nga xamante ni mooy nonga nomba yi tànk ci diwaan boobule moom mi lee dina joxal li nga xamante ni rek mooy ndigal wax ni bu ko kenn voteel la ko waral nag moom mi la mi ngi jàpp ne Ousmane Sonko mi la nitu fitna la ba tax na sax ndax li fi amoon te lu bëri ñàkk ci seen bakkan loolee moom dong mooy moo ko waraloon ba tax na moom bile ma ngay xam ne ni rek bu dëkkoon ci diwaanam dina joxe ndigal kenn bañu ko voter ma ngay jàpp ni sax anam bi nga xamante ni Ousmane Sonko da koy defee politique dafa salte ma ngay ne ni sax méngoo ak mooy réalité Sénégal détournement de 3,9 milliards ci suñu ay koppar moom la ñu toppee promoteur bi di Aziz Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ni nag ab bateau d'engrais moom nag lañ ne moom lañ daal di rek toll ci 3,9 milliards directrice bi di wuyoo ci turu Ndeye Nacy moom nag ay atam toll ci juróom fukki at mu nekk présumé responsable bi moom la muy xam ne rek ma ngay daal di duut baaraamu tuuma kii di Aziz Ndiaye Massata Alla Ndiaye ak sax Alla Ndiaye na ñoom ñi leen nag ginnaaw ba mu jëflante ak ñoom mu daal di toll ci 3,9 milliards boobu ak léegi nag joxuñu ko dërëm jamono ji ñu toll nii bi mi ngi fi nga xamante ni rek mooy la sûreté urbaine moom nag mooy daal di wéyal boobu lay enquête kawteef moo daal xew ca Sandaga ca Lamine Lamine Gueye ginnaaw waa ji di wuyoo ci turu Moussa Cissé moom nag la ñu daal di fekk moo faatu moom mi la nag ay atam mi ngi toll ci juróom fukki ni rey bu ñaaw la ñu ko di def ginnaaw ba ñu ko daal di rendee ba noppi rek euh, taal ko ginnaaw bi sax la ay voisin am daal di koy gis alerte ñi nga xamante ni ba ñu ñëwee nag daat nañu koy identifier moom nag muy wuyoo ci turu at ginnaaw bu ko ay mbokkam di wër ay fan moom le nag daan nañ koy fekk ca Sandaga ñëw faat ko waaye la ñuy xam mbir mi ko ko def ab malade mental la maanaam xel mi neexul saa su nekk rek bu yëngoo dafay daal di rek ba tax na def na jëf jooju lay daal di faat waa ji di wuyu ci turu Moussa yi dañu koy jeexalee ak lu soxal mbirum people service suédois de streaming musical moom nag ginnaaw ba mu doon amal ab anniversaire mu jëkk fii ci Sénégal jox noonu sax ma ngay xamle ñetti waykat yu Sénégal yi nga xamante ni moom lañu gën a déglu ci seen plateforme bi fu ci àdduna moom nag ma ngay xam ne ni kii di Akon moo nekk ca kanam ku ca topp di Youssou Ndour ak Baaba Maal ñoom nag ña ngi ko doon xamle ginnaaw ba ñu doon amal seen anniversaire fii ci Sénégal ña nga cay xam ne sax ni ñetti waykatu sénégalais yi ñu gën a déglu ci seen plateforme boobule mooy Akon ak ki nga xamante ni mooy Youssou Ndour ak Baaba Maal amee internet Sunugal 24 li leen indiloon ci xibaaru bés bi de di leen wax ngeen way duñu topp seen site d'information bi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah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 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax